la Casamançaise moo may émission faral sa foot. salaamaaleykum 13 TV yi tey ñu ngi dalal ki nga xam ne mooy Amdy Moustapha Bèye milieu offensif bu AS Douane tey dalal euh, moom aussi moom jot am euh, sélection équipe nationale locale jot jaar tey Olympique de Ngor jot jaar Stade de Mbour euh, Mbour Petite Côte ak Ndiambour Thérèse fi nga Douane dalal ngir gën leen xamaleel kam nooy kan mooy kan Amdy Moustapha. la. la judo. de foot et tout de football la bonne pépinière. Mhm. avant que may Dakar formation. Mhm. à un moment donné je me suis dit que peut-être pourquoi pas Madame Dakar. ok championnat je pense depuis 2013. Mhm. année nga def ans là. ans mais j'étais junior.

Stade de Mbour defar naa benn année parce que année bi mooy bi ñuy joué deux yi ak finale bi amoon drame contre waa. Ah, ngeen bokkoon. ok euh, ndax ngeen dundee drame boobu noonu. na boo koy fàttaliku nii sax mooy loolu quoi da ngay day xaw xaw a triste daal parce que bon boo ay nit yoo xamante ni tout le temps dañ daan ñëw di la supporter tey nga tiim leen nii sa kanam xam nga a métti quoi. am na lu mu leen defoon. sincèrement jour boobu noonu bi ma ñibbee sama kër final bi équipement yi ma ko joué woon noonu bàyyeeg yooyu noonu yooyu noonu protège ci bi ak diju ma ko noonu laa tëddee bi ma yeewaatee ay peut être ay huit heures noonu ci kii bi laay soog a sumi sama ay équipement parce que tellement c' était. affaire yi daf la choqué waaw daf la choqué c' était choquant quoi affaire yi métti woon na daal. Mhm. ba tax na dëy dëy la woon boo xam ne ci biir département bi bon mooy loolu mënoo woon a mënoo woon a rester sans que affaire bi affecté la affecté la vu que aussi ngeen bokk si joueur yi nga xam ne tey ñoom fa nekk année boobu noonu moor yi bëri woon mu nekkoon drame boo xam ne tey euh, laaloon na Sénégal yëpp waaw Sénégal yëpp mais bon mais tamit bon damay wax ni que peut être que mbiru yàlla lu waroon am la daal ok lu waroon am la amaana bon ñi ñi ko causé ñi ni wax ni ñi wax ni ñoo causé bu lay ay yëngu-yëngu du fa am ok bon gis ni ni mbiru di ñaanal personnes yi nga jaajëf yàlla xaaral amiin amiin. waa Ndiambour bon bi ma kiiwee SAT bi ma defee mhm. toog ba ba bay bay entamé waa troisième année bi. Mhm. après bon peut-être ci laa amoon nag quelques divergences ak ak dirigeants yi ñàkk a jubóo yooyu noonu di moment que ñoom aussi. ñu la moo leen jotale lu waral lool. bon xam nga rek des bon des fois ñu proposé la loo xamante ni yow tamit loo xam ne du mën a ànd daal. joueur bi lan la war a mën a proposer parce que boo ñëwee si équipe xanaa dañ la teg poste boo xam ne bëggoo fa jouer wala problème nu mu demee noonu. ok ah. a nekk di wax. oui bon loolu kon ñu jàpp ni problème contrat la woon. problème contrat xam nga am ay parti pris après bon ku nekk dem. mais est-ce que ba nga blessé foofu tamit ñom toppoon nañ la ñu la doon euh, jema a ak yoy noonu. waaw bi ma bi après ma dem Ndiambour j'ai on a joué les j'ai joué les 6 premiers matchs. Mhm. en tant que titulaire match yëpp laa joué après ma contacté ben blessure au niveau de la cuisse benn genre élongation la. Mhm. je pense que 3 semaines laa waroon top pour reprendre compétition. veille de match la woon contre la Lingère, derby mooy derby bi ni jouer fofu noonu qui ci mise en place puis ci la gaañoo am élongation après bon c'était pour trois semaines Les bi trois semaines jeex man ci laa jot notification boobu après j'ai j'ai remarqué que j' étais pas j'étais pas le seul parce que yeneen jours y nga xool am nañu tamit ñoom ñëpp compétition lañ gaañoo aussi tamit même cas lañ subir quoi on était cinq ñoo xam ne ñëpp bon 5 cinq joueurs même équipe blessé en cours de compétition blessé. match si match ni entraînement. après peut-être que bon le club a, a, ses responsabilités il a préféré bon peut-être nous remplacer avec d'autres joueurs. bon après exactement la non après après après juste que après y a eu quelques mais après do xam dal li li likoy koy bloqué parce que après man bima bima bima bima bi def amoon na kii de litige bu nek fédération. parce que sama sama sama conseil man moom moo chargé woon bind li mo wara bind mo koy bind. mais bim ni ma bind na kii de litige bi normalement on va vous entendre jusqu'à présent ba légui amul. ba légui dara xew. et ce qui est bizarre mooy que euh ci litige bi ñi nga xamante ni ñoo waron di di di di lolu après la année suivante ñom ñoo wutal équipe bob non ay joueurs parce que ci ci ay wax dégg naa ñun ñu ni diw diw mo indi fi jour. kon ñu wara a saafara seen jàngoro ñoom ñoo leen utal ñuy jour. ba pare ignoré leen après do xam saison bi stop comme si que peut-être que xawma do xam tay ba ni ni amul kenn ku ñu entendre ci lolu té lolu bon je pense que accident de travail la parce que gaño won suñu kër gaño won ci mbéd mi ci bir club lan gaño ok légui bala ñuy revenir juste si sa après lan mo la indiwaat ci sa blessure dañuy jaajëfal suñu suñu sponsor hein mooy Ola Casamance joueurs yi waaw j'espère que yéen a koy jël ah. waaw bu baax sax waaw mooy loolu noonu mooy mooy jàpp ci liggéey bi en day employé doomu dëkk bi. Mm-hmm. donc euh, ñu koy jëfandikoo. bu nekk ndox bu légère. Mm-hmm. bu jël ko nii après da gis résultat. waaw nice waaw moom moom ndox bu ndox bu seet la. Ah, te jël nga jëfandikoo ñu xool ñu lu muy sax. te gars yi instant bi bàyyi nañ ko xel de gars yi koy wax bu baax sax. Ah. <laughs> waaw waaw instant bi waaw <laughs> la après blessure après blessure je pense que le jour même bi ma bi notification que bon genre que ma je pense que à 15 h là bien, Je bon <laughs> déception genre que parce que xam rek nit buñ que la forcément déception. Et puis bon, j'ai fait des sacrifices pour New Fof, non. Sacrifice, moi, que peut-être que j'étais dans un club Bohamantine, j'étais bien aimé et tout, mais peut-être que Kitach, moi, du fa et tout. Bon, Japon, nani, bon, si je suis bon, dinañ xol yoy dal dinañ xol yoy dal ba def mais aussi comme je me suis dit que du man kessé tamit et puis tamit lolu yàgg na si si démarche ñom so xolé seen i antécédents jour yu bëri def nañ len ko après je me suis dit bon

di ko nuyu de passage sama per la xam nga sama président la te moom moom ma mi ngi noonu. moo la faj waaw le jour même la ma la ma woo ci guddi gi ni ma ni ma ni ma ñëwal soo soo accès Thiès rek ñëwal dakaar bi ma demee këram il m'a dit que bon du ma la sa wax nga fubal da ngay dem nga fajuwaat nga xoolaat sa tànk ba faju ba wér boo fajoo ba wér après looy décider nga décider ko moom loolu la ma wax. tey si nga waaw delloo ko njukkal topp waaw c'est ça bi mu faju faju ma ba wér dama naan moo ma faj ba ma wér. parce que moo génn xaalisam yóbbu ma ci ay ma defaat ay échographie ay kii def ci xaalisam. après bi ma wéree aussi tamit l'année l'année bi stop année bi stop amoon na pas mal de contact mhm. ba si équipe bi ma dem rek année boobu contacté nan ma mhm. mais dama ni suma suma équipe fayoon milliard tamit fii laay Puisée au cœur de la Casamance dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamanceaise est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamanceaise, naturelle comme j'aime. La Casamance 16 existe en 10 litres, 1 litre 5, 60 centilitres. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux Casamance 16. suma équipe fait un milliard tamit fii laay jouer. parce que je jëlee fu metti. waaw si je suis nga xam ne moom nga. waaw moment boo xam ne peut-être que kenn xoolut kenn waxatul ak yow kenn xoolatu la parce que jour bu blessé gars yu bëri dañuy rasu dañuy daw mais moom instant boobu la ñëw ci man approché ma. xam nga mettre remettre ma en confiance donc. Euh, man moom waaw. ok ren nga ñëw jaraaf ren nga ren nga ñëw euh, douane bi ren nga ñëw douane. waaw ban ko genre contrat nga fi signé. waaw douane laa ñëw ren pour deux ans laa fi signé. parce que tamit bi ma fiy ñëw aussi tamit comme li ma lay wax noonu nag. Euh, Père Mbaye Diouf Dia moo tamit facilité parce que bon mënoon na ma mënoon na mënoon na ma wax ni ma bon waroo ju waroo fi jugee et tout mais il m'a carrément dit que bon Douane moom c'est mon deuxième c'est mon deuxième club le fii Sénégal parce que fa laa en tant que manager avant may ñëw Mbour Petite Côte donc ñom buñ la soxla duma ma la wa yombalal na la waaw yombalal na donc ma ñëw foofu signer 2 ans ak ak président Bassirou. ok. Est-ce que jot nga jël ay trophées comme Coupe du Sénégal champion du Sénégal ou bien Coupe de la Ligue. man peut-être que mon vice champion daf ma toppee Mboro quoi. Ah. <laughs> parce que bon. da ngay dem ma finale ñu patal la. finale deux fois Coupe du Sénégal avec Olympique de Ngor. mooy année bi ko Pikine di jël bi muy Olympique de Ngor année joué j'ai joué la finale en euh, 2017 contre MPC Nous, ñoo gagné aussi 1-0 comme trophée peut-être que top. Euh, 2017 euh, finale coupe de la ligue contre Wakambi bobu la ñu sur tapis vert. ok C'est que instant bi drame bi dam ñoo mëne et puis temps bi jë bëreetul woon li si des quoi la wax. donc euh, nek na aussi vice vice champion du Sénégal deuxième Olympique de Ngor suñ première année Nous ñoo jëloon deuxième si ginnaaw jambar ñu def tamit tamit tour préliminaire deux tours préliminaires euh, Coupe d'Afrique des clubs Coupe CAF Coupe CAF waaw. Ah, nga participer. avec Olympique de en 2014 en 2015 waaw. ok gis nañu aussi jot sélection am sélection équipe nationale locale bi. mais ba nga ñëwee yàggoo fa. pare que mhm. blessure moo la fa jëlee. Qui waaw mooy kii bi passé ah. waaw waaw éliminatoire chan bi passé ci peut-être que sama sama saison bi ma def euh, à Mbour Petite Côte. Mhm. c'était pas mal donc euh, ci la ci la sélection mais malheureusement encore bon. Tu as nga sélectionné. bon c'est pas ñu <laughs> allo ñëwal euh, équipe nationale nañ la peut être que bon sur coach coach euh, principal Mbour Petite cote, bon bi saison bi jeexee il m'a peut être que genre donne moi, ma genre brossé loolu sama kii quoi ni ma il faut être actif parce que bon vu saison bi nga def et puis tamit gars yi li ñu renseigné wu ci yow mën nga mën nga am sélection affaire non. noonu mën nga am pré sélection équipe nationale parce que dañuy Wajel, euh, dañuy Wajel qui éliminatoire Chani man quoi mun ma ma bon en tout cas pour rester inactif donc man tamit bon après bon xawon nako baye sama xel mais tamit je me suis dit que du ko def sama bopp de trop une fois que woowunu la après mu lay sonal. ok ba ben ngoon. bon première une première liste bu ñëk a pour ñu def présélection bon bokuma ci won bon après boobu la ni bon comme li ma la doon wax mo ñëw mais après deuxième nak bon ci la ci la ma ko su Serigne Saliou woo après bon j'ai fait toute la préparation avec l'équipement hein moi parce que bon je pense que définitivement plus de sept convocations je suis ne tout le temps de don waaw maa mais bon à un moment donné tamit bon ce moment là je sentais un peu des douleurs si sama pubis Donc, je euh, j'étais pas assez performant comme ni le ko Parce quoi parce que soo une saison vous metti jouer match da ngay sentir yenn fatigue yi sa yaram et tout donc euh, noonu la demee woon après blessure bi ma ko doon traîner di traîner daal ba tax na ni ma waroon a performant trop performant wu ma waaw après ci laa génne mais bon jot naa participer benn match amical contre la Mauritanie match de préparation la woon quoi fii ne waaw waaw wa wa test bon xam nga des fois peut-être que bon bu njëkk bi c'était c'était une genre ben genre sélection là woon Amentine xamante ni pas mal de jours lañ fa yóbbu léegi yoo xamante bon agent yi ku si nekk da ngay indi jour ñu def benn genre camp d'entraînement léegi après foofu ñu sélectionner les meilleurs les sur les meilleurs loolu agent yi ñoom ci la ñuy xool ku si bon club bi la mën a wutal affaire yi noonu ma dem foofu bu njëkk bi mais instant saison mi ngi commencé fi mënu ma fa tok ma ñew def ben saison bi saison bi jeexee juste rek ci la ma ci la ma woowaat ni ma yaa deux clubs yo xam intéressé na nga leen pour nga ñew ñu xol la bon Olympique de Béja la won ak US euh, Tatawin ñaar yeb bi Tunisie la nek quoi légui bi bi bi bi ma demee foofu aussi bon fofu ak seni seni loi ak seni genre quota étranger bon affaire c'était c'était trop compliqué bon man yu si bëri sax duma ko won maîtriser mais bon, j'ai fait là-bas deux mois, j'étais avec l'équipe en préparation. Mais après, à la fin, nous avons signer Parce que bon, peut-être qu'il y a des lois, il des complications. Sa chance n'est pas bonne. Non, peut-être, oui. Après, je suis les postes militaires, hein, ah, parce que vous militaire, hein. parfois vous jouez 6 pour milieu offensif, parfois défensif. Est-ce que le poste militaire est yombo <laughs> Non, yombo. Parce que après, bon, je me donne que ni tey c'était à refaire peut-être que bon di nga xol poste benen bu gëna moins pénible que boobu wa mais gars yi wax lu yomb tam baaxul de. waaw baaxul c'est c'est un poste la bo xam dafa compliqué parce que tu es tu es impliqué ci phase yépp muy ko phase possession ak phase défensive so yoré bal da nga wara impliqué wu c'est équipe bee bu yoré bal da nga wara impliqué wu. bo deewee rek da nga rey équipe. c'est ça parce que gars yi wax rek milieu terrain moom. animation la. waaw bu ci benn deewee rek. wa jeex na waaw jeu bi dootul dootul amati. waaw mais tamit loolu la demee na mais tamit si toutefois nga retrouver wu ci terrain c'est un plaisir quoi c'est sûr que c'est un presque. ça arrive parfois aussi nga yéeg. waaw def pas xam nga rek yéeg daw dugal bi wala. j'ai pas mal marqué bon en tant que numéro 6 que ça soit que ça soit au stade de Mbour ak Mbour Petite Côte aussi bon je marquais je faisais des passes aussi donc. peut-être que looloo tax xëy na léegi fu mu xaw a metti milieu terrain bu njëkk ba danaa la défensif nga yow del del pas de gars yi ah. rek nga joxe bal bi waaw dafa changé waaw léegi danaa la milieu défensif bi sax yaay meneur de jeu équipe bi donc dafay exigence waaw nga dem waaw nga yi nga tukki nga tukki ñëwaat yooyu noonu <laughs> mais sant yàlla euh, coach yi nga xamante ni yaa ngi leen di côtoyer ñoom tamit bon ñu ngi lay ñu ngi lay jéem a wax ni que ni bon football bi fii la toll et puis tamit ngay jéem a adapté wu donte donte yombul xam nga fii vu que ñun suñu suñu suñu suñu préparation à bas yëpp bon day day xaw a raté yu bari yoo xam da nga koy raté mais tamit bon tout le temps dañuy jéem a adapté xam nga jéem a concentré wu yi coach yi di wax yi bëgg ñu leen koy defal quoi. sama joueur <laughs> bon man sama joueur nag en tant que xale. Euh, Samir Nasri la woon. boobu waaw boobu moom affaire création moo ma neexoon temps booy.

abattage xam nga sa façon de courir dans le terrain ni muy joxe énergie bi muy joxe quoi ça waaw ça me plaît bien si si milieu terrain bon su fekkee sur le plan peut-être offensif jour yi may jour yi may gën a xool mooy peut-être Verratti comment il sort les ballons comment il se déplace. yow bëri nga ay jour. waaw ña sa ay ambition. waaw sa ay rêve tey lan nga lan nga mbébét fan nga bëgg tey toll ëllëg ci ci football

noonu la dañ lay jaajëfal parce que temps bi dab nañu ñu ngi lay jaajëfal di la remercier si déplacement bi nga déplacé wu ñëw fii si bi sport ñu jàkkaarloo ak yow tey ñu bëri ñu nga xam ne tey xamuñu woon am ni Moustapha Beye wax nañu jaar-jaaram wax nañu sélection am si équipe nationale locale bi jot nañu wax aussi test yi nga xam ni moom la moom moom moom fa la euh, jaar na fa ñu ngi lay jaajëfal di la di la wax ni bonne chance si sa si sa carrière di la wax nga wax sa dernier mot rek. waaw sama dernier mooy di di sant ñëpp parce que. sa gars yi aussi bul fàtte wax leen ñuy abonné. waaw waaw <laughs> seetaan nii actuellement. Ah. déedéet boo ngeen kii yooyu noonu moo leen émission yi bu ñëw rek waaw waaw mais télé peut-être que yaay kii nii rek mais publicité na boppam ba pare. Ah, parce que bon avant que peut nga may invité nii bon man je suivais parce que sama ay copains jaar nañ fii donc. abonné woon nga woon naa déjà pour pour pour kii leen quoi pour pour suivre seen émission. lu nice la quoi tey lii lu baax la pour football local bi. pour jouer, yi nga xamante ni bii ngi ciy évoluer au moins pour se faire voir et tout donc euh, di le remercier di remercier aussi tamit toutes les personnes yi nga xamante ni bii ma jàppale depuis depuis bi ma commencé football bi parce que ci football la ñuy wax instant bi nii personnes yi nga xamante mon sama première goraas ñoo ma ko jëndal maanaam ñi gëm avant que may gëm sama bopp quoi di leen remercier peut-être que ñoom su ma fi doon lim day xaw a day xaw donc mais bon ñoom xam nan xam nañ seen bopp et tout donc di leen wax rek bon maa ngi ci liggéey bi di di def loo xamante daal pour pour un jour ñu gën a fier daal. ok xam naa ne ñoom loolu rek lañ ciy xaar incha allah dina ñëw merci Amdi. ok waaw lay jaajëfal di leen jox rendez-vous à très bientôt comme ni leen ni ma leen ko waxee rek dee leen aimé partagé leen dee leen abonné aussi di jaajëfal suñu sponsor Ola Casamance. Fara sa foot moom nii lañ nii la koy defee rek day génneel les espoirs du foot local di leen xamaleel ak les joueurs locaux saa su ne.